comme nous allons le voir, c'est un changement, l'homme des grands événements l'homme qui est partout à travers le monde entier pour soutenir la musique sénégalaise plus particulièrement la musique africaine Pour nous, un ko démb mouvement à Hôtel Arena Paris Bercy le 13 octobre 2018 une date mystique dans une salle mythique avec un artiste hors pair Pape Diouf leader de la génération consciente à l'assaut du Bercy le 13 octobre moo tax tey ñu ñëw xool waa diaspora bi naka lañ koy préparé kii nag dootuma ko présenté waa Sénégal on le connaît très bien à travers Kim Fat Place Hôtel Pekos nuyu naa man le 13 octobre date bu mag ak Pape Diouf ban message ngay lancé waaw kooku de monsieur Sénégal la Bercy moom boo ko déggee ñëpp xam nañu Bercy ndax grand bi yu tu vois il ñu yàgg jóge Bruxelles di dem mu nekk fierté africaine tu vois donc euh, on relève à duñ nous ne sommes kontaan contents, parce que l'eau loo gis rek dañuy ñaan relève mu relève, tu vois donc euh, Pape Diop bu ñëwee Bercy dañuy ñaan yàlla fekke ko jàmm ak salaam xam nga taxaw fa taxawaayu Sénégal taxawaayu Afrique bëggee ñi si nekk ñu topp ci gannaaw ñepp tam ñaan yalla ñomit ñu dem la même chose mu defee lolu quoi mu doon une continuité quoi donc le 13 novembre le 13 octobre tout le monde à Bercy. Moi, le 13 octobre tout le monde à Bercy topp mu waxoon ci le gars yi dañoo fi bés bés dafa am Paris Bercy. suñu xel day dem ci Luxembourg ndaxte yàlla grand promoteur Laurentin na si yaay chéri Laurent date bu bees dafa am ginnaaw suñu jógee ci suñu mu le 13 octobre ak Hôtel Arena ak Pape ban message ngay lancé waa diaspora bi donte yàgg nañ ko xam nee naa leen c'est une date mystique dans une salle mythique avec un artiste fort. non Pape Diouf rek moom du yomb Pape Diouf rek.

yangis hein? D'accord. gisga comme nous koy ça c'est un des grands événements partout à travers le monde rien que pour le développement de la culture sénégalaise en passant par la musique donc nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre à Accor Hotel Arena Paris-Bercy avec le leader de la génération consciente Pape Diouf du Yom, dem Carrefour Auchan Ticket accord hôtel Arena Paris Bercy si site bi ngeen jënd ak seen carte su ngeen jógee foofu dem leen lampe Fall dem leen ci café Touba Baye Fall café Touba mi ngi ci buntu lampe Fall toog demal restaurant Thiala demal Pointe des Almadies jëndi sa ticket soo demee Luxembourg Lorental dina la jaay soo ñëwee Bordeaux Serigne Ndiaye dina la jaay soo demee fan nu mu tudd encore Suisse demal nga seeti salon de coiffure chez Fa ñom ñoo yor ticket dama né Genève yéen ñëpp pare leen mobiliser ñu wuy ci